di bég lool nag ci daje bi ñu am tey waaw te muy daje boo xamante ni daf may permetre ma euh, sant ci sëriñ Béthio mi nga xamante ni day sama wasila waaye day sama boroom de passage aussi maa ngi félicité suñu président suñu nouveau président bi di euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko ñaanal bu baax di bëgg lool nag ci daje bi ñu am tey waaw te muy daje boo xamante ni daf may permetre ma euh, sant ci Serigne Béthio mi nga xamante ni day sama wasila waaye day sama borom de passage aussi maa ngi félicité suñu président suñu nouveau président bi di euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay di ko ñaanal bu baax